balaa vendredi ñu woo léegi les dirigeants parler ne leen kaay leen lan la lu xew waaw tele yi commencé ñëw parce que bu ñu déggee université commencé nañ di kii commencé di déstabiliser yeneen école yi primaire yeeg secondaire yeeg yooyu muy doon grève nationale wala grève euh, scolaire national yaakaar naa ni léegi ñu ne lan la ñu ne kii daa feebar bay bëgg a dee contacté nañ autorité faalewuñ léegi ñu def euh, acte bu gaaw loolu moom man maa leen ko wax ni bu loolu dañuy toog xaar yàlla pour ñu mun a matal les cent et quelques millions pour mun ko jàppale parce que nit ki nekk da ngay xam aussi euh, say réalité du pays mais maa ngi maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant di ko di ko mastawu di ñaan tamit suñu mbokk mi mu wér ak jàmm médecin jeeju wér ak jàmm ak salaam yàlla delloo ko ci njabootam ak ca na mu meloon wala na ko gën sax comme ni ñu waxee bon bu mënee dugal aussi le lien Litchi bi mu dugal le lien Litchi waaw yaakaar naa ne dugal na ko mi ngi noonu mi ngi noonu waaw voilà euh, pour ñu sauver ko ñu jàppale ko te yàlla tax na ci ñëpp jàpp te yàlla tax parce que vraiment ku war a wér la quoi mérité na ko mérité na ko existence am am na sens ci kaw suuf am na sens aussi pour yi parce que sauver Diédhiou c'est sauver un médecin te sauver un médecin c'est sauver vos loolu la quoi. donc ñu yeggali suñu waxtaan pour ku nekk rek mun a xam ni réew mi réewum caaxaan la réewum kaf la réewum foo la réewum parparloo la réew boo xam ni très sincèrement bëgguñu dem tristement triste mais bëgguñu avancé réew boo xam ni booy foo di kaf ñu fees tel di seetaan réew boo xam ni boo sériyaayee ñoom ñëpp daw yàgg naa ko wax booy live bëri caaxaan bari kaf ñu mat cinq mille dix mille quinze mille trente mille taxaw bu waxtaan bi commencé sérieux rek nga gis leen ñuy seey denn benn viw viw viw di daw dafa mel ni dafa am dañ leen configuration yi seen noppi warul dégg lu baax warul dégg lu leen avancé loo warul dégg lu leen jëmale kanam warul dégg lu leen évolué loo ñoom ñoom wutuñu loolu ñoom seen sens émotionnel nii lay def paf paf di xaar nga wax leen lu leen di reetaanloo wala lu leen di bégloo wala lu leen di kafloo c'est-à-dire luy yëngu ci seen yaram yépp lu leen di fooloo la lu leen di caaxaanloo la lu leen di yëngal si bañ jot seen septième sens wala seen septième ciel sax moom mooy il faut mu neex il faut ngay kaf il faut ngay ree il faut ngay foo mais nag au moment wu nguur gi ñoom ñoom dañoo am seen fulla ñoom kafuñu foowuñu parce que Macky Sall wax na leen ne leen man dama am fulla quoi du ma ragal tàppetuma <laughs> maanaam Macky Sall moom dafa annoncé la couleur bu gisoon Sénégalais yi fulla ci ñoom non dina xool lu wax mais il a bien dit que moom ragalul te Macky Sall kañ la am fit Macky Sall musul tëdd kaso Macky Sall ñu ko jàpp Macky Sall benn yoon lañ ko interroger dëgg rek mu daw dem ci sëriñ ba xalif général ba di ñaan ndimbal njëkk ak teranga ba fay jooy mais kañ la Macky Sall am fit musul tëdd kaso musul ñëw ci xeex bi en 2012 Macky Sall musul taxaw ci manifestation yi musul nokki lacrymogène moom moo fi newoon le seul tapet boo xam ne ñëpp Ibrahima Fall ak ñëpp a taxawoon foofu ba ci Moustapha Niasse sax yor na xeer même bu dee ragal la yoroon na xeer kan moo gis ci manifestation 2012 kan kan moo ci gis benn photo bu Macky Sall nekkee foofu musul yor xeer musul yor bant musul du musul ñu ko dàqe musul ñu ko dóor musul naan lacrymogène musul ñu ko tëj musul ñu ko dugal ci oto police dikk lañ ko woo interrogation rek mu tëj bay ñàkk toj xat daw ba fa génn rek jubali ci ci xalif généraux yi di ñaan ndimbal Abdoulaye Wade boo defoon nag dina ma tëj mu ne mu ne du ragal mais léegi wax leen ma fan léegi fan la doonee guerrier kon ci ban fan la Macky Sall wanee guerrier am Macky yow doo ragal mais léegi yow wan ñu foo guerrier fan nga xeex fan lañ la atte sa giiru dund kenn musul la atte sa giiru dund musoo dóor bulon sa giiru dund laa dàqe sa giiru dund musoo yor xeer xeex xeex yi musa am Sénégal ba Sénégal daj musoo cee xeex musoo ci xeex nga ne yow doo ragal koy napp kan ngay napp yow xam nga ni boo toogee naan doo ragal da ngaa yaakaar ci armée bi rek boo toogee naan doo ragal da ngaa yaakaar ci police bi boo toogee di ñu menacé ne yow doo ragal gënee nga yow da ngaa yaakaar ci gendarmerie bi rek gendarmerie nationale institution nationale yi nga yaakaar def ko sa arme de guerre mais bu dee yow kese kese kese kese. <laughs> yow yow ragal buqat nga doo yaa romb nga ragal buqat xam nga buqat buqat boo nee xaa sax mu puub tubéen yow weesu nga ragal buqat nga doo dara kuy tàppet bu ñu ma ne woon demal indi tàppet bu gën a ngand senegal yow laa indi musoo xeex musoo tëdd ci kaso benn minute xanaa ci France mooy li ñuy xanaa ci <laughs> boo demee Macron sax amoo fit lu Macron loo Macron wax nga def nga ne yow doo ragal ñun ngay napp am léegi nga teg say état d'urgence teg si confiné ñu pour napp ñu quoi pour napp ñu ab mer gàddu la yoroon de mer gàddu bëri la yoroon gisoo fa gisoo fa lacrymogène musoo gis Macky Sall taxaw jàpp amul fenn fu mu mus a xeex fu nga gis Macky Sall musul am fenn. Macron bii di fii booyam booy bu ndaw da koo ragal Macron rek la ragal France def nañ couvre-feu état d'urgence mu ñëw defal ñu couvre-feu état d'urgence population de 16 millions d'habitants amul sax 300 euh, morts mu ñëw dóoral ñu couvre-feu état d'urgence ku ko laaj tey lu tax dix-huit dix vingt une heures à cinq heures du matin mënu ko expliquer pourquoi virus bu mën a circuler toute la journée fu waay neex dem jaxasoo mais à partir de vingt et une heures virus bi day nalaw maanaam virus bi day nalaw ba vingt et une heures la virus bi di yeewu vingt et une heures jusqu'à cinq heures du matin foofu la virus bi di yeewoo mbete virus bi moom ci mbedd yi lay taxawaalu léegi ña nga jël dugal leen ci biir kër yi ñoo ne xanaa mënuñu yor virus bi ña yenu yanu leen pour ñu des ci biir kër yi ak la fa nekk ci nit xanaa foofu virus bi du fa ne mbedd mi na vide ñoo ñëpp dugg ci biir kër yi mais ñu dugg ci biir kër yi ñooñu de am na ñu fay corona am na ñu bëri ñu fa feebar nga jaxase leen ñu entassé wu ci biir kër yi. léegi lan moo waral six heures du matin a vingt heures cinquante neuf yëpp nga bàyyi sénégalais mun a dox fu leen neex mais à partir de vingt et une heures jusqu'à cinq du matin nga war leen confiner ci biir kër mais kooku ko nangu mooy amoo ful la. ku ko nangu mooy amoo fulla parce que war nga mun a taxaw wax gaa yi virus bi lan moo waral entre cinq heures entre six heures zéro minute jusqu'à vingt heures cinquante neuf nit mun a dem fu ko neex dox nu ko neex wax ak ku ko neex dugg fu ko neex te à partir de vingt et une heures jusqu'à cinq heures du matin kenn warul génn war nga ñu expliquer quand même Macky peut-être yow jàng nga loolu wala am nga xam-xam virus bi war boo mun ñu wax loolu donc doole rek nga fay jaay mais du benn xam-xam fu nga teg ni à partir de vingt et une heures jusqu'à cinq heures du matin kenn warul génn nañ tëju ci biir kër yi nañ fa fay dal nañ fa tàncaloo day doon euh, yu doon kaarabaaw mais bu kenn génn ci mbedd yi wax ñu ko Macky <laughs> expliqué ñu quand même ñun xamuñu ah heure boobu moom pour lan la sa heure bi pour lan la léegi loolu nag il faut que sénégalais am nañ droit génn am nañ droit wane ni ils sont en parfait désaccord ak la nga wax parce que la nga la nga créé wala la nga def amoo ci benn xam-xam te wane woo ba tey ay preuve comme quoi que de telle heure à telle heure lii day graaw wala foofu la virus bi di gën a amee doole wala foofu la nangam nangam amoo lenn loo expliqué donc ku ko nangu c'est parce que da ko nangu rek mais yow mënoo taxaw rek ne ñëw couvre feu état d'urgence couvre feu vingt et une heures cinq heures du matin ñëpp ne ay xarak yi béy expliquez-nous ñu comprendre wala virus bu waaw comme exactement wala virus bu vampire la virus boo xam ne moom vingt et une heures lay ci mbedd yi di wër di après comme mu gis ci mbedd yi rek dugg ci yow du dugg ci kër yi quoi ñu nga entassé ci biir kër yi virus bi du dugg foofu dajale nga leen ci biir kër yi virus bi du dugg foofu moom virus bi à partir de vingt et une heures lay ci mbedd mi di wër kenn kum kum caaxal rek taflu ko cinq heures du mu dem nalawi waat quoi virus noctambule la daal virus noctambule la moom day noq à vingt une heures dañ war a vider Dakar ak Thiès ñëpp dugg seen biir mu noq mu teg caay nam noq ba heure cinq heures du matin mu ne mag maa dem tëddi baal gars yi ñu génn mais foo faut arrêter léegi dix mille problèmes am droit montrer son désaccord par rapport à ça ngeen jël tëj ci kaso bi non mais c'est triste nag non réew mi ku ciy reetaan sax non da ngaa bëri bëñ rek c'est extraordinaire mais nit ki wone benn désaccord am par rapport ak la nga teg ñu ne force reste à la loi c'est quoi la loi donc Macky Sall moom moom loi bi quoi donc réew nga war fa fekkib loi yaw sa bopp ngay président topp ci loi bi mais yow da nga am sa loi yow yaa toog ci télé ba mu neex la rek nga ne à partir de vingt et une heures jusqu'à cinq heures du matin bu kenn génn état d'urgence couvre-feu nit tamit am droit comme yow ngay nit ni moom muy yow muy muy nit ni yow am loi boo xam ne moo leen lañ rédigé mu ji loi bi yor la yor ko nga bàyyi fa loi ba yow wax sa wax nu mu la neexee mu taxaw moom tam montré son désaccord nga yónnee sa police ñu fekk ko këram ne ko fa danget jël ci njabootam yóbbu sànni ci kaso bi mais Macky Macky Macky dëkk bi amul démocratie ah Macky dëkk bi vrai doole crasse la am Macky dëkk bi. mbiru bandi dëgg nga ci dawal affaire de wuyu dëgg affaire de jaay doole dëgg la nga taxaw wax ne nii la mu ne la non amu ci droit wala nga expliquer ma lan moo tax nga ne ma vingt et une heures à cinq heures du matin génn def désaccord am nga yónnee ko lan lendemain ay policier lu day ni dëgg ñu dugg seeni oto dem ba kër dix mille ne ko fa danget génne yóbbu sànni ci rëbës lan la parce que dama montré sama désaccord dañ ne à partir de vingt et une heures jusqu'à cinq heures du matin nañ tëju ci biir kër yi ñun amuñu fu ñuy fanaan ñun foofu dafa xat donc dañoo montré juste suñu désaccord ñu ne fa danget moom diir problème moom kumba amul ndey parce que dafa siiw nga ne ko fa danget jël yónnee lu day ni police institution nationale ñu dem yenu ko jël dugal ci kaso bi Macky ban ndam nga ci am est-ce que dafa téye nit yi ñu génn kaas est-ce que dafa am nit yu mu tere ñu wane seen désaccord ba léegi mais Macky lan moo la neex ci doomu aadama ya ngay jàpp rek di dugal ci kaso yi lan moo ci neex lan nga ciy gañee jaayum doole bii lan nga ci ba lan moo la neex yow boo yeewoo gis sa doom Mamadou Sall sa sawet nga yeewoo gis say doom sawet wet ànd sa doom dugal ko ci oto Tamba Ndakaaru ba say tàttaan nga dellu mais Macky na nga buggee di yeewoo di gis say doom leen ñun tam sañu yaay yi bëgg di yow du ñu gis Macky ñun du ñuy bandi Macky sàcc ñu alalu réew mi Macky détourné wuñu compte yi dañoo montré suñu désaccord te am nañ ci droit seen pays de liberté de droit de démocratie bu ngay yeewu ni ngay yeewoo di parent di bëgg a gis say doom noonu la ñu sañu yaay sañ papa yi bëgg di yeewu di ñu gis ñun tamit parce que yoruñu dara lu réew mi sàccuñu alalu réew mi yeewoowuñ foo xam ni moomuñu ko wala alalu réew mi yow sa doom ci alalu réew mi lay yeewoo sa jamar di yeewoo ci alalu réew mi say doom ci alalu réew mi la ñuy dundee di fa fajoo di fa voyager ñun ñun ñii fajoowuñ ci alalu réew mi voyager wuñ ci alalu réew mi lekkuñu ci alalu réew mi joxooñu liggéey mais ngir la bàyyi ñu Macky bàyyi ñu ko quoi Macky ngir li laay war a suuli na nga bëgg di gisee Mamadou Sall noonu la sañu yaay yi di bëggee di gisee ñun tamit di ñu gis mais yaayu 10 000 problème bëggoon na yow gis 10 000 lan la 10 000 problème def yow Macky 10 000 problème yaay bu ñëwoon laaj la ne la man sama doom lan la def mais yow amoo lum def il a montré son désaccord par rapport li nga teg te amoo ci benn xam-xam te wane woo ci benn preuve te wane woo ci benn argument bàyyi doomu jàmbur yi gaañ chaque jour ñu ne libéré ñun nii lañ nar a dundee ci réew mi libéré Assane Diouf libéré Karim Xrum Xax libéré Guy Marius Sagna libéré dix mille ñu ñun chaque jour libéré mais Macky mais Macky pénitencier nga ko yow doomu aadama yi di tëj rek Macky finalement tu es devenu benn pénitencier yow sa dund bi yëpp rëbës la jàpp doomu aadama yi di tëj rek mais Macky arrête arrête quand mais ça suffit amul lan lu dix mille problème def amul kenn ku ko war a ñaanal ay noo Macky dimbale ko bàyyi leen yooyu bàyyi leen yooyu Macky di jaay doole da ngeen koy wax ni bàyyil doole gi ngay jaay bàyyil sañ-sañ bi ngay teg ci doomu aadama yi man awmul benn droit bu ma mën a taxaw dimbale leen dimbale amul amul ndimbal ta ko war sax jàpp fii nii ci Canada buñ fi génnee ay affaire masque yi dëkk bi dañoo génn wane seen désaccord jàppuñu ci kenn kenn di ko tëj ci kaso aux États-Unis pareil mbirum masque dëkk bi génn nañ jàppuñu ci kenn tëj ci kaso bi bu ñu wax waxu vaccin fii ci Canada dëkk bi génn nañ ñi nga xam ne dañoo génn ne du ñuy sol masque les anti-masques là génn nañ fi des milliers au Canada ñu ay masques est-ce que police bi jàpp na leen di tëj ci kaso amul kenn ku nekk ci kaso Canada fi parce que sol dafa solul masque. et pourtant génn nañ par milliers ne ñoom duñ sol masque le c'est des anti-masques te ñu leen ci kaso ñii génn nañ ne piqûre bi duñ ko jël partout am na ay manifestations yu ne ñoom duñ jël piqûre bi mais tëjuñu leen ci kaso yi mais yow nga teg. sa couvre-feu nit génn ne man ànduma ci je suis en parfait désaccord ci li nga wax parce que mënoo ñëw rek yow rek nañu vingt une heure cinq heures matin kenn du génn nga jël teg nga yónnee lu day ni dégg mel ni bandi wu ñuy dem jëli ne ko da jël ci njabootam sànni ko ci kaso bi non mais Macky mais Macky dëkk bi amul démocratie Macky mais Macky dëkk bi fere doole cratie la am njaayam doole Macky mais Macky affaire bi garaaw na de mais Macky yi affaire bi yéeme na de loolu nag ragal moo koy def luy yëngu nga daane parce que da ngay jàpp ni lépp lu yëngu da ngay foog ni si sa kaw lay dal ragal kese mooy dox lu mu dégg biri bu mu génn nii nii adduna ba bu muy yegg nii lay def di moytu loolu ragal rek moo koy def tëf mu ne nii buuf mu ne nii mu doo yegg sax doo mus a yegg yow fu ne nii lu yëngu nga ne sama kaw lay dal Macky ndànk xam nañ ni ragal nga xam nañ ni tàppet nga mais ndànk ko gars yi jóguñu pour dal sa kaw ndànk rek ndànk doxal ndànk calmement non mais c'est triste quoi libéral doomu jàmbur yi Macky chaque semaine ñëpp ni libéré libéré mais Macky mais Macky ngir yàlla libéral doomu jàmbur yi te yàlla tax te nga bàyyi ñi ngi jàppale di tëj ak sa police bi nga indil nga yónnee police bi ah, maintenant chaque jour police dugg kër pauvre yi kole leen ni motif yóbbu leen tëj lan la def dafa génn wane désaccord am lan la def dafa génn ci mbedd mi lan la def mais mais boo taxawee ne danga plan international de vaccination nit am na taxaw am na droit taxaw ne la non ma ci mais loolu kenn du ci tëj ci ay dëkk démocrate dëkk bu am démocratie kenn du fa tëjaate nit parce que da nga nekk en parfait désaccord ci vaccin bi wala ci état d'urgence wala ci couvre-feu bi loolu kenn du ci tëj nit Macky yow dañ ciy tëj ay nit quoi balaa maa day ñu naan loi lan mooy loi bi mooy lépp lu Macky Sall wax loi la kon dëkk bi dafa am loi boo xam ni loi la bu fa nekk ak loi wu Macky Sall boo xam ni moom yoonam newul ci loi bi moom dafa yor loi boppam quoi les policiers n'agissent que sur les ordres on sait mais les ordres viennent d'en haut c'est des ordres de Macky Sall moom muy di wax loi Macky Sall depuis bu mu ñu jiitee ba léegi depuis en 2012 bu mu gagné la fi def déclaration de patrimoine bu mu fi gañewaatee nii deful déclaration de patrimoine te l' article 37 de la constitution du Sénégal nee na nit mënul jiite réew te defoo déclaration de patrimoine bind ko say am-am la la nga am lépp mais Macky Sall la ñuy jiite sans déclaration de patrimoine kan moo gën a nekk bandi buy bafoué ay règle ak ay article constitution bi daf ne article 37 munoo jiite réew te defoo déclaration de patrimoine loolu constitution bi wax Macky yaa ngi jiite sans déclaration de patrimoine kan moo gën a nekk un brigand un voyou ki nga xam ni moom dafay jiite réew te deful ba léegi déclaration de patrimoine ba léegi déposé woo ko te ba nga gañee ba léegi def nga fi trois ans presque deuxième fois ba léegi defoo déclaration de patrimoine léegi yow ñi mi nga fi taxaw di wax ay loi wala droit donc te yow yaa ngi jiite si sans déclaration de patrimoine mais c'est normal tu as voté sans carte d'identité pour une première fois l'histoire retiendra Sénégal ba Sénégal daj yow yaa fi nekk benn nit yow kese yaa mus a voté sans carte d'identité ana mooy dama ko fàtte gàlle ñu wax nga jaay doole voté yow kese yaa ko def gum cest à la ngay def bu Sénégal di Sénégal bi la yow rek yaa koy def yaa fi voté sans carte d'identité yow yaa jiite réew sans déclaration de patrimoine yow rek yaa ko def déjëk àlla nax <laughs> mais comme sa peuple amuñu fulla mooy li may wax ce peuple lu leen retaan loolu la ñuy wër luñ fecce ñu bëree liñ caaxaanee sa normal comme yow am nga fulla da nga koy def doo bàndi nag mais am nga fulla quand même xam nga li nga bëgg xam nga fulla xam nga li nga bëgg te yàlla chance bu mu mooy ca ña nga nekk amuñu fulla da nga am fulla te ña la yàlla baaxee wala ña la yàlla bàyyee amuñu fulla donc loolu moom lu nga bëgg di ko am mais loolu nga yàgg loolu nga gis ba foog dangaa ngaa géree moo tax nga naan ay duma ma tàppet du ma ragal noo du loolu de amoo fulla amoo fit fulla nga am amoo fit da nga am fulla dafa am fit ak fulla comme xam nga ni réew ma nga jiite amuñu fit amuñu fulla nga profité yow mi am nga fulla te amoo fit mais nga jiite leen nangu seen lépp yóbbu balaa ñoo yeewu c'est tout au moment où jeunes yi nga teg ci kër yi pauvreté pandémique baa nga fa chômage endémique baa nga fa kër yi xat nañ la promiscuité au moment où lijjanti woo les libertés individuelles liberté woo lijjanti woo la sécurité nan nit yi nekkee seen biir kër yi lijjanti woo ko bul yaakaar ni sa pale boobu na mu yaatoo la kër yi yaatoo bul yaakaar ni sa pale boobu mais kër yi dangay dugg fa fekk kër yi dafa xat kër dafay am papa am yaay am doom am sët am jarbaat ñun suñu kër yi looloo fa ne mag suñu papa yi amuñu ñetti doom kom yow mag yow bariwoo woo yow la sa jabar ñetti doom mais kër yi ngay tëj dangay gis papa bu am ñeenti doom ñeenti jabar ñëpp ci biir kër gi jabar yi am ay doom ñoom tamit kii am set kii am huit kii am neuf seen doom yi màgg takk jabar indiwaat ko ci biir kër gi seen doom yi ami ay doom donc am na maam am sët am jarbaat am goro lépp mi ngi suñu biir kër yi Macky ñun meluñu ni yow ñun amuñu ñetti doom amuñu ñetti doom ñetti doom biir palais moom ku leen dugal foofu noonu day yomb mais ñun amuñu ñetti doom amuñu benn jabar on est une famille polygame quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais famille polygame lañ am ci famille polygame lañ juddoo muy man di keneen ak keneen suñu papa yi ay ñetti jabar lañu am ay ñenti jabar am ay njaboot seen njaboot jur ay njaboot seen njaboot jur ay njaboot ñu yëpp ci biir kër yi la ñaar nga ci gis ñu dem luwe nga jël lool lépp teg ci biir de vingt une heure à cinq heures du musoo jóg dugg benn kër xool ba xam nan lañ fa nekkee te ñooñu seen yaay ñii ay jaaykatu cere lañ dañuy bàyyi ba vingt et une heures seen seen seeni cere teg ko ci tali bi pour jaay ñii seen yaay jaay ko ci caaf lañ ñii seen yaay jaay ko ci gerte lañ et cetera et cetera ñii seen papa ay commerçant lañ nga leen vingt et une heures fu mu jot ñibbil duggal sa biir kër sama yoon newul la fa ne xat na xatul am ngeen fu ngeen fanaan amu leen de I don't give a damn tëju leen foofu mag yërëmal askan yu mag yi bu dee e, da ngay expérimenté wu pour xool bu ma taxawee ne troisième mandat nan laa def pour mun a def couvre-feu dóor état d'urgence taxaw tëj leen seen biir kër yi pour mun a def lu may def mais Macky loolu noonu kenn du nii nga koy mise miselé ñi nga xam ne ay wax ay waxkat lañ wala dañuy éveillé ma ma napp leen tëj leen ci kaso yi Assane Diouf taf ci kaso bi dix mille problème taf ci kaso bi Guy Marius Sagna taf ci kaso bi Karim Khouroukha taf ci kaso bi ku nga ne ko ci kaso bi mais attends parce que da koo tàmm ba nga xam ne amul koo tëj ku génnul ñëwul ci sa parti ñen ne woon PDS yi nga tëj yëpp dañoo mujj ñëw militer ak yow sa parti amul kenn xool leen ñen ne woon yëpp amul kenn ku ci Macky tëj mu génn te demul ànd ak Macky tey parce que da ko làmbaatu muy yomb ci moom mu ne du ko bàyyi amul kenn ku nekkoon parti démocratique sénégalaise boo xam ni Macky Sall tëj na la ci kaso bi ba tey jii mu bàyyi la te demoo ànd ak moom amul kon moom xam na ni tëjaate bi moo gën a mun a yomb pour mu mun a museler peuple bi pour mu mun a oppresser peuple bi pour mu mun a toroxal peuple bi dafa làmbaatu de Macky xam na de Macky Sall xam na lépp moom police bi la def armée armée police bi la armée woo kaso bi la armée woo ña ne PDS di jaay rëy làmmiñ ko fippu fippu mu jël dugal ci avocat ba dugal ci kaso ba maire boobu dugal ci kaso ba ñooñu ma dugaloon yëpp ci kaso ba ñaari maam Macky Sall dafa jël nguur gi mu ne leen ñëw leen ñoom Serigne Mbacke Ndiaye ñëw ñoom kenn dugg ci kaso képp ku ñëw ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye ñëw ànd ak moom kenn dugul ci kaso bi ña di bandi bandi la ko bañ bañ la mu jël leen leen ràpp ci kaso bi ñamal leen kaso génn leen ne leen loo leen wax ñu ne waa acca ànd nañu ak moom ñoom ñëpp amul kum tëj ci kaso bi te nga newoon ci Abdoulaye Wade koo xam ne tey jii àndoog Macky Sall donc moom xam na ni lii mooy moyen bu gën a efficace pour pour napp askan wi léegi nag lii lépp test la lii lépp test la. pour xool askan wi est-ce que tey bu ma taxawee ne leen troisième mandat dinañ mën a génn wala dara damay def couvre-feu état d'urgence génne armée mais est-ce xam ne ni ma ngi ci mbedd mi Macky dafa xeeb sax police bi ak gendarmerie armée bi ñu ngi ci Sénégal ci mbedd mi <laughs> c'est catastrophique instant yi guerre la Macky Sall ne guerre ak sénégalais ak nu police bi tey ci booy yi génn nii rek ah di wane seen désaccord Macky Sall armée bi bàyyi na police ar police bi yëpp ñu ngi ci mbedd mi gendarmerie bi yëpp ñu ngi ci mbedd mi léegi dafa jël armée bi sax dugal ci mbedd mi même l'armée est dans la rue au Sénégal mais na ko journaux yi bind état d'urgence catastrophique au Sénégal moins de trois cents morts une population de seize millions d'habitants même l'armée est dans la rue la police est dans la rue l'armée est dans la rue la gendarmerie est dans la rue ñoom ñëpp a ngi ci mbedd mi catastrophique catastrophique comme guerre comme guerre c'est du jamais vu musul am musul am Sénégal lenn am ba ñu génne sax l'armée Macky Sall laa génne l'armée même même l'armée est dans la rue Nous, on a prolifération de, de familles nucléaires, des quartiers populaires. Mais je n'ai peut-être pas génn police génn armée génn gendarmerie lépp nga génne mais lépp nag pour une bataille irréversible mais c'est catastrophique est-ce que lii nii situation bu sénégalais di dund nii sincèrement mérité na ñu nekk fii dans l' émotion quoi tout se partage émotionnellement tout tout nga préparer sa live gi bind ay grandes ligne noter ay grandes lignes développer développer développer développer bay bëgg a am fenn foo xam ni pour joxe exemple à la sénégalaise nga wàcce ko xëcc benn affaire inspiration dugal ko fa gars yi ñu ne tap dagg loolu jël dugal partagé mais ateen aimé aimé kay kii kay dafa neex kii kay guignol la kii kay comédien la kii kay dafa moo doon man daf may rey c'est triste non mais c'est triste